ko muy gaynde gu góor gi waaye kat dafa am yeneen ñaari garab yu ca dolleeku benn bi nag jabet lay faj nee na ma nag képp koo xamante ni am nga tawat boobu ñu naan jabet boo jëflantee ak moom diñ ca am lu kawe sa njortu beneen bi nag moom hémorroïde lay faj nee na ma garab bi baax na lool ci hémorroïde waaye moom yemul ci réew mi ndax ay bànqaasam law na ba Europe waaye bànqaas yooyee jéggi nañu Europe dem ba Amérique du Sud bu dee ca Europe moom dëkk yii may waaja lim képp koo xam ne foofee nga nekk yittewoo ci garab yi rek jàppal ni Serigne Cheikh Ndiaye am na ndaw lu ko fa teewal muy ca France itali Espagne Allemagne Angleterre waaye ca Amérique du Sud tamit dëkk bu ñu naan Brésil am na ndaw lu ko fa teewal ba ca Argentine waaye yemul foofee képp ndax ca États-Unis tamit am na ndaw yu ko fa teewal kon képp koo xamante ni yitte woo nga garab yii rek mën ngaa woote ci numéro bii may waaj a lim muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 ñoo ngi ñaan nag képp ku jokkoo moom rek yàlla na sa aajo faju ci barke maamam di sëriñ Daaru Assane ñu door revue bi dooree ko stade yéenekaay match yu nar a neex yi war a am soxal Ligue des champions tey jii la journal bi fësal ca wu njëkk wa match yooyee bokk na ci Napoli ànd ak Victor Osimhen ñooy dalal Real de Madrid Napoli nag xam ngeen ne ni ñu dooree saison bi baaxul woon waaye jamono jii ñoo ngi doxal kon waa Real de Madrid nañu waajal match boobee beneen bi moo di Inter ànd ak law Lautaro Martinez ñooy jàkkaarloo ak Benfica Benfica nag am nañu xew bu rëy ndax jamono jii doomu Argentine bii di Lautaro Martinez dafa nekk ci forme match bi mu mujj amal ak waa Inter ñeenti bit la ca dugal beneen bi moo di waa Manchester United ànd ak Marcus Rashford Galatasaray la ñuy dalal Manchester United nag ni ñu dooree saison bi baaxagut match bi ñu njëkk am sax mu soxal Ligue des Champions dañoo nërmelu ci kanamu Bayern de Munich ñetti bal ci ñeent tey jii li ñu bëgg moo di noyyiwaat ànd ak Erik ten Hag am ndam bu dee waa Bayern de Munich ñoom ca Copenhague la ñu jëm tey jii ñoom li ñu bëgg moo di ànd ak Thomas Tuchel am ndam tey jii ngir gën a dëggal seen bopp ci groupe A bi ñu nekk Nampalys Mendy tamit mi ngi ci journal bi ñoom nag bi ñu dooree Ligue des Champions bi muy waa Lens dañoo fekki woon FC fi témboo ak moom kenn ku ne dugal benn bi tey jii nag Arsenal la ñuy dalal li ñu bëgg moo di ànd ak doomu Sénégal njëkk ci ligue des champions bi match yi ma lim yépp nag dix neuf heures lay door waaye laata dix neuf heures nag ñaari match war naa am bu quatre heures quarante cinq jote Union Berlin mooy dalal Sporting baraga ca waxtu woowee tamit Real Sociedad war naa jàkkaarloo ak Salzburg Salzburg moo koy dalal muuri jawit mi ngi ci surnal bi doomu Sénégal bi nag club ba mu nekk di moo jamono ji taxawaay bu ama am solo la fa amal rawatina ca kang ya loolu moo tax surnal bi xëy indi ko samp laaj ci moom est-ce que jotul ñu jox ko wërsëgam muy départ titulaire ci équipe national bi loolee la journal bi samp comme laaj yenit it ma leen koy laaj ci commentaire yi journal bi tamit fàttewul équipe nationale bu Sénégal rawatina Aliou ngeen ne war nañoo jongante match amical ak réewu Cameroun match amical boobee nag list bi Aliou Cissé ajjuma la koy siiwal maanaam gone yi mu wóolu ngir ñu jongante match amical boobee ajjuma bii ñu jëm incha allah ci la Aliou Cissé di siiwal liste bi. ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futur Media fekk fa record yéenekaay nampalis Mendy la journal bi fësal ca wu njëkk wa ginnaaw bi mu amalee matcham bu njëkk soxal Ligue des champions ak clubam bu bees boobee di Lens tey jii ñuy amal seen. seen ñaareelu match Arsenal la ñuy jàkkaar lool match boobee nag ñoo ngi cay xaar doomu Sénégal bi ndax match bi mu njëkk amal ak Lens doxal na ca Séville lañ doon jàkkaar lool mu départ titulaire doxal tey ji nag ñoo ngi koy xaar day confirmer am déet muy Nampalys Mendy surnal bi tamit ñëw na ci waa Jaraaf ñoom nag am nañu coach bu bees officiellement Malick Daaf mooy tàggat Jaraaf jamono jii ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe wa Lens mi war a dalal Arsenal la surnal bi fësal ca njëkk wa fexe leen njëkk a dóor anglais yi tey jii ndax réewu France club ya fa nekk dina ñu jàkkaarloo ak équipe yi nekk ci réewu Angleterre ci semaine bii ñu nekk tey nag lañu koy door Lens mooy dalal Arsenal li waa Lens bëgg moo di am ndam waaye bu ñu amee ndam tey jii ba noppi suba Paris mooy fekki Newcastle mu soxal Ligue des champion ginnaaw suba nag Ligue Europa Marseille mooy jàkkaarloo ak Brighton waaye kat France gépp li ñu bëgg tey jii moo di lance wan yoon clubu France yi am ndam ci kaw Arsenal bu Mikel Arteta bu suba Paris def ni moom ginnaaw suba Marseille def ni ñoom loolee la journal bii di l'équipe xamle ñu jugee France wutali Portugal fekk fa record bu Portugal waa Benfica rawatina ki leen di tàggat di Chimite le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa tey ji Inter la ñuy fekki waaye Chimite mi tàggat Benfica mi ngi wax nee na ñoom waa Benfica iituñu waa Inter li ñu bëgg moo di dem jëmbat ful la fexe am ndam nee na ndam baax na lool te ndam la ñu bëgg sunu munul am ndamit ñu jéem a am match nul loole la simit xamle fi mu daanelee rek fi la Angel Di Maria jëlee kàddu gi nee na Inter gii ma gis Inter gu baax la kon ñun waa Benfica li ñu war moo di jëmbat ful la bañ a yox-yoxi bu ñu yox-yoxee rek dinañu jël score bu diis loole la Angel Di Maria xamle match boobe nag tey jii bu 19 heures jotee Inter mooy dalal Benfica ñu jugee Portugal wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay choc bi war am tey ji soxal Ligue des champions di dox ci diggante Napoli ak Real de Madrid le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa waa Real de Madrid nag ñooy dem kër Diego Maradona fekki fa waa Napoli jamono ji nag waa Real de Madrid ñoo ngi doxal ñoo ngi am ay ndam di dugal ay bit waaye bu dee Napoli ànd ak Victor Osimhen ñoom tamit ñoo ngi doxal jamono jii naam ni ñu dooree woon Serie A bi baaxul waaye jamono jii la ñuy xaar tey jii bu dee waa Real de Madrid ànd ak Carlo Ancelotti li ñu bëgg moo di am ndam mën a jël pee ci poule bi nga xam ne moom la ñu nekk jamono ji Napoli moo jël pe waaye ñoo tolloo ay poñ Napoli matsam bu njëkk dafa gañe 2-1 Real de Madrid gagné 1-0 Real nag li mu bëgg moo di am ndam bu dee waa Napoli ñoom li ñu bëgg moo di dëggal seen bopp ci première place ba journal bi nee na match boobee nag doomu Croatie bii di Luka Modric du ca départ titulaire ci banc bi la koy dooree kaay yéene kaay xam le waa Real Sociedad it ñu ngi ci journal bi ñoom tey Salzburg la ñuy war a jàkkaar lool match boobee quatre heures quarante cinq lay door Real Sociedad ànd ak Take Kubo li ñu bëgg moo di am ndam ndax ndam képp moo leen mën a jagal tey jii bu dee waa Séville ñoom PSV Eindhoven la ñuy jàkkaar lool Séville ànd ak ki leen di tàggat di José Mendilibar li ñu bëgg moo di dem ca PSV Eindhoven fekki fa Luc de Jong am ndam ci kawam Luc de Jong nag min na lool Séville ndax nekkoon na fa ci fàttali jaar na tamit ca Barcelone jamono ji mooy capitaine u PSV Eindhoven ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Xavares xel yàlla journal bi fësal ca wu njëkk wa ñun tiituñu waa Real de Madrid loole nag du samay kaddu kaddu doomu joueur ci bii di Kvaratskhelia aas yéenekaay moo ko dalal ñu séq waxtaan bu yaatu laata muy jàkkaarloo tey jii ak Real de Madrid ndax xam ngeen ne doomu joueur bi ma nga ca Napoli Napoli googee tey jii ñooy jàkkaarloo ak Real de Madrid moom nee na dafa juddu xam Real de Madrid toog ci télé bi di leen seetaan ñu nekk nag équipe bu mag waaye tey jii day jàkkaarloo ak ñoom xeex li mu bëgg nag moo di gañe leen Xavareskeliya moo yëkkati kàddu yooyu journal bii di aas yéenekaay nee na Carlo Ancelotti nag mbiru Modric jaaxal na ko lool xamagul nu mu koy def Marca nee na ci banc bi lay dooree match bi waaye AS moom nee na ba léegi Carlo Ancelotti xamagul nu muy doxalee ak Luka Modric dina départ am du départ moom ci kanam tuuti incha allah dinañu ci xam dara. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Lamine Yamal ak président Barcelone la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa mille millions d'euros loole nag mooy un milliard d'euros loolu moo nekk ci kuloosu Lamine yemal doomu Espagne bi yokku na contrat ba atum deux mille vingt six foofee ca Barcelone li tax waa Barcelone yemale ko ci atum deux mille vingt six moo di jamono jii six cent képp la am fukki at ak juróom-benn bu ñu yeggee nag ci atum deux mille vingt six dina am dix huit ans bu boobaa nag waa Barcelone mën nañoo yokk contrat bi xaatimal ko contrat bu guddul lool waaye jamono jii moom contrat bi ko lëkkale ak Barcelone atum deux mille vingt six la wala jeex bi mu yokke contrat bi ba noppi. bi moom Lamine Yamal wax na nee na fii ci Barcelone de jàpp naa ni sama kër la ndax yàgg naa fi lool jamono ji nag maa ngi ci équipe A bi di football loole bég naa ci lool li ma bëgg nag moo di bind taarix ci club bi loole la Lamine Yamal xamle kàddu yooyu nag mi ngi ko yëkkati ginnaaw bi ko waa Barcelone tëjee ndax gone gi kat Barcelone dafa am lool yaakaar ci moom moo tax ñu yokk contrat ba noppi def ca clause bu toll ci un milliard d'euros kon gone gi jamono ji kenn mënu ko Barcelone ñu jugee esport jël Mundo Deportivo Lamine Yamal ak président wu Barcelone le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa il reste Sekeda doomu Espagne bi day toog ca Barcelone googee doxal li ko waral moo di yokku nañu contrat officiellement ba atum 2026 moom nag yàgg na ak wa Barcelone te foofe këram la bi mu amee sept ans maanaam juróom-ñaari at la dem ca Barcelone muy Lamine yemal yokk nañu contrat am nag waaye doomu Espagne bi nee na na lool ci yokku gi nga nañu ko contrat li mu bëgg moo di doxal ca Barcelone indi fa ay ndam yu bari waaye jël fa ay coupe yu bari moom Lamine Yamal nag footballu Espagne am nañu lool yaakaar ci moom rawatina club ba mu nekk di Barcelone. ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport choc bi war a am tey jii ca Italie le journal bi fësal ca wu njëkk wa Napoli mooy dalal Real de Madrid bu Carlo Ancelotti moo tax journal bi nee na est-ce que du yoon bi mooy nekk yoon bi gën ngir Napoli am ndamam lu njëkk ci kaw Real de Madrid Napoli ba mu ak tey jii mosul gagné Real de Madrid loole la journal bi xamle jamono ji nag noppi nañu li ñu bëgg moo di am ndam ci kaw Real de Madrid bu deru Rudi Garcia mi di tàggat ñaar ñii la yaakaar muy Victor Osimhen ak Kvaratskhelia waaye mi ngi ñaax gone yi nee na leen tey jii match bu mag la ñu am li leen war moo di jëmbat fulla fexe ba nekk cent vingt pour cent ngir mën a am ndam ci kaw Real de Madrid ndax Real de Madrid équipe bu mag la nag tey ji moo di fexe góor góorgóorlu am ndam ndax ngoon yu mel nii kat yombul lu muy am Rudi Garcia moo xamal loole gone yi muy tàggat bu 19h jotee nag la match boobee di door. ñu jugee Corriere dello Sport de Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waa Inter rawatina Inzaghi mi leen di tàggat la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa tey jii Benfica la ñuy dalal Inzaghi nag mooy wax nee na sama Inter gii interu européenne la waaye li tax mu yëkkati kàddu yooyu moo di dafa am ku muy tontu ki muy tontu du kenn ku dul Sassi Sassi nag ay jamono daan na tàggat équipe nationale bu itali daf fi waxoon ne Inter du moso nekk européenne jamono jii nag waa Inter dañuy jongante Ligue des champions Inzaghi nag mi ngi koy tontu nee na ko man ak yow bokkuñu gisin tey jii maa ngi jongante Ligue des champions te li nga xam le woon moo di inter gi du interu européenne waaye si noppeegul ba léegi nee na ko de Europe googu nga dem su fekkee bëgg nga faa def ay jaloore am fa ndam yu bari ba noppi jël ay coupe li la war moo di yokku sa pressing maanaam di attaquer équipe yi ba noppi di nangu bal yi waaye inter bii ñu gis li muy arrière moo ëpp li muy attaquer su fekkee def na loolu rek mën naa def jaloore ca Europe loole la sasi xamal Inzaghi mi tàggat inter